seen mouvement bi yéen a ngi collecté parenage waaw fan ngeen toll. aw ma pour wax ko ñu ngi collecté parrainage suñu jotee pour def lu ñuy def lu ñuy àtt nañ ko def on n'est pas dans la concurrence de vitesse par rapport aux autres candidats. mais bu dee amoo loo wax kon kay bu dee amuloo ah, pour wax ko kay kon kay jarul. non non defal naa lan nga bëgg ma indi la sama ngeen toll laa wax. fu ñu toll mooy ñu ngi. bu dee mënoo tontu kay jarul jarul waxtaan ah, baa ma defal lu gën ah. fu ñu toll mooy. ñu ngi transféré suñu parrainage sur la sur la clé USB fa lañ toll. ok donc vous serez prêt le di décembre. ah incha allah. yow jàppoo ne. avec cette pléthore de candidatures là jàppoon ne finalement la loi sur le parrainage <laughs> est une est une très bonne chose. Euh, ça dépend xam nga parrainage dafa am lu ko lu ko tax a jóg te fii Sénégal respecté ñu ko en parce que man je je préfère maanaam parler su ñu jëlee benn décision il faut qu'on explique au Sénégal les causalités mais aussi qu'on respecte ces causalités là parrainage soo ko xoolee ci yeneen dëkk yi lenn moo ko tax a jóg maanaam da xëcc. li nga gëm ci politique mais da ngay dàq li nga xam mooy danger bi exemple par exemple su ma jugoon pour parrainer Ousmane Sonko dama koy parrainer par rapport à son idéologie à son programme mais damay am choix wu parrainer yeneen deux personnes pour maanaam éliminer li nga xam ne mooy d'ordre ethnicisme ak d'ordre régionalisme parce que daa am lu muy dàq ak lu muy xëcc li muy xëcc lenn la mooy li nga gëm ci discours ak li nga gëm ci programme mais day dàq li nga xam manaam mooy danger ci dëkk bi mais malheureusement fii Sénégal amuñu ko logiquement un Sénégalais devait devait pouvoir parrainer deux personnes à trois personnes mais pas personne. Mais, une personne c'est de l'élection présidentielle pure et simple. mais xam nga dañoo ne élection présidentielle euh, législative 2017 yi la ñu amoon du problème on se retrouve avec 47 listes ñu indi la loi le parrainage. bien appliqué mal appliqué à la présidentielle de 2019 on s'est retrouvé avec euh, cinq candidats Mais cette présidentielle, cette présidentielle là, on en est pour le moment à plus de 276 candidatures euh, candidats à la à la à la à la candidature. Ouais, mais mais dañoo toll foo xam ne la fonction présidentielle sax euh, dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko woyofal. pourtant non ku tëb ne dama bëgg a nekk président euh, ku tëb ne euh, je vise la la la la la magistrature suprême. may mën a d'après li ñu mujjee wax on est presque 18 millions de Sénégalais. Mm-hmm. sur 18 millions de Sénégalais soo si génnee 266 personnes ñu bëgg nekk président mais loolu c'est normal. est-ce que dañu vassaliser la fonction. non non non non du tout non parce que amul tax parce que si biir ñu bëri xam nañu si biir am na ñoo xam ne dañuy jël seen parrainage rien que maanaam pour am benn argument pour mën a bokk ci ay coalition ñu bëri am nañ loolu loolu moo tax ñu dugg si parrainage bi mais taxuñu taxuñ ci dugg maanaam pour être carrément maanaam dem ba sës ba non c'est pas ça du loolu. et vous c'est quoi votre cas. ñun suñu cas mooy maanaam être carrément candidat incha allah et imposer notre programme.